asalaamaaleykum mbokk internet d'ici et d'ailleurs gannaaw bu ñu nuyoo ku nekk ci sa tur ak sa sant delu di len ziar jox naa ku nekk sa wàccuwaay j'espère que vous allez bien bienvenue dans ëttu jigéen ñi tey nag ñu dalal ka nga xamante ne nii kenn dootu ko présenté mais balaa boobu moom dina jot a présenté wu ngeen daal di xam kan mooy sama gan tey je profite tout simplement de l'occasion pour euh, féliciter ko ci nomination bu bees bi ñaanal ko yàlla mu doon jiglaayam laataa ñu dugg ci waxtaan bi nag du ma def lu dul tourné wu moom ñu daal di waxtaan mu nuyoo ak yéen ngeen xam tey ki ma dalal kan la soxna si maa ngi lay nuyoo. Bernadette maa ngi lay fay maa ngi nuyu Euh, képp koo connecté Dakar 221 du sénégalais yépp di c'est difficile de se présenter de parler de soi-même mm-hmm. mais bon je vais essayer je me nomme Diégui Diop Fall je suis la nouvelle directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants son excellence président Macky Sall mon nom est ci poste euh, je suis dans le ministère de madame Ndeye Diop qui est le madame le ministre de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants bon je suis juriste de formation j'ai appris à l'université Gaston Berger de Saint-Louis euh, j'étais présidente des Amazones de l'université Gaston Berger de Saint-Louis avant bobo j'ai appris à Podor voilà fait mon cursus primaire mu Podor Madame Saint-Louis après à Saint-Louis dellu wat encore Saint-Louis euh, voilà, je suis allée à Montpellier. J'ai fait là-bas banque et assurance, Madeleine, de Saint-Denis, Paris-Saint-Denis, au niveau de, l'université Paris-Saint-Denis des Faux-Faux, euh, master en trois des grandes agglomérations européennes. Après, tel digënté digënté bi l'Amérique, naa Amérique def l'immigration. fi lu ñu napp immigration. salon létt loo c'est avec fierté toujours là, koy pour voir ni nit jigéen dëgg fait warul ni ni j'ai été le plus jeune chef de cabinet ici au Sénégal euh, Ligue EGBS, après euh, au niveau du conseil économique et social après Demi-Ferso, jóge ñëw CDP commission de protection des données personnelles en tant que chef de service après une coopération jóge Fofu, dem ministère de la santé d'un programme national de lutte contre le paludisme tey jii nag mais machallah nous allons tout simplement vous dire encore une fois nos félicitations les plus à ça après euh, Taïdan dañ que pouvons-nous savoir de vous c'est un peu difficile. Je suis juriste, je suis femme, je suis mère, je suis une épouse, je suis une politique, une ancienne syndicaliste et aujourd'hui une directrice nationale. De mes son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Euh, parmi tant de millions de jeunes sénégalaises, tant de millions de jeunes juristes, le président a porté son choix sur moi. Bien sûr, avec le concours de Madame le ministre de la Femme, qu'on a mis président Macky Sall. Euh, je suis une femme engagée, une femme engagée pour la cause de la femme en général et la cause de l'homme euh, la cause de la femme en particulier et de l'homme avec un grand H en général boo nee l'homme avec un grand jigéen mi ngi ci biir góor mi ngi ci biir mag mi ngi ci biir xale mi ci biir je me suis tout le temps engagée parce que je me suis dit il faut que j'ai mon mot à dire pour que ma mon mot à dire du ma toog di seetaan télé di critiquer kese wala yor sama portable wala yor sama tablette déedéet je vais mouiller le maillot damay tek sama tank pour ñi mënul tek sen tank damay wax pour ñu mënul wax damay dégg pour ñu mënul dégg damay xool pour ñu mënul xool di leen mën a kaasal di leen mën a waxal fa sama baat mën a yem ba sama baat fa ka yàlla mën a àggale donc man pour man daal su may résumer sama yëf dama naan je suis une femme engagée mais j'ai voulu préciser épouse et mère pour wane ni nekk jigéen rek dafa metti nga nekk jigéen nga nekk yaay dafa metti nga nekk jigéen nga nekk yaay nga nekk soxna dafa metti nga nek jigen nek yaay nek soxna nek politicienne ba pare am ay responsabilités au niveau de l'État dafa nek lu difficile wayé c'est un don de soi qu'on a accepté et qu'on aménagera aucun effort pour mener à ko. Euh, est-ce que surprise bi tey euh, xaaroon nga <laughs> non du tout vraiment je tiens may sori sax à remercier Soya nga xamanteni que mo nek ci Dakar 221 di wax neex parce que sur à ma parmi tant de femmes comme ni ko président fait ñew pour ñu waxtaan ci jigen ñi lu la trop. ñu lay laaj lan nga am pour proposer li nga xamanteni ah, Sénégal lan nga am pour proposer ñi nga xamanteni sénégalais comme alternative vu leur difficile quotidien dafa metti ci fépp metti ci parce que xam nañ pandémie nekk xam nañ covid 19 bàyyiwul kenn àdduna covid 19 laal na leen damay wax ak ndaw ñi ba wax nañu dal parce que covid 19 à part gi ak li nga laal na économie gis violence violence tant au niveau ci ñu gis violence si diggante nit ak nit ñu gis violence si mbedd bi may wax sénégalais nañu dal tous les jeunes ndax dafa am loo xamante ne dañ ñu ko xamee ku dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fi nga jógee fi ñu jógee mooy ngor

nous sommes un pays jeune nous sommes un pays émergent Nous sommes ko la vision de son excellence monsieur le président Macky Sall votre engagement politique euh, vos nouvelles missions est-ce que vous Bon, j'ai pas de nouvelles missions au niveau de Bernard Bokyakar de Saint-Louis. une nouvelle mission sur le plan étatique et je l'assumerai jusqu'à la dernière minute parce que son excellence Amna je suis une conseillère départementale sortante. Donc, nous avons nous des élection pour changer les de Je ne fais pas partie de l'équipe parce que j'ai pas été investi mais je pense que j'ai été investi par le président Macky Sall j'ai été investi par

nek nit ko xam amna am gu rëy ci ndar ndax wane nak bimu ko ba fi mu agsi kon man damay summi sama yéré mouyé le mayo pour que Macky Sall bu am ndam ndar ndax nak Saint-Louis au cœur. Le président Macky Sall a choisi une Saint-Louisienne comme épouse. Le président Macky Sall jël Saint-Louis def ko ci damay jàpp ndax loolu le président Macky Sall tanne ma parmi tant d'autres jeunes damay jàpp ndax lolu. Waye nak le président Macky Sall tanne monsieur le maire ministre Mansour Faye mi nga xamné dafa waxone président Macky Sall bu tànnee li sax mu jappalé kooku kon duma gëna goré. man damay jappalé monsieur le maire Mansour Faye ba mu dégg wiiw au soir du 23 janvier. Machallah. Machallah. Tay euh, ñu gis né jigéen nga et que jaar nga fu nekk yaakaar naa y a pas de sot métier. Mhm. pour jigéen tey ban message ngay lancé ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy les femmes et les jeunes filles. damay wax jigéenu émigré yi ba pare ñi nga xamante ni bàyyi nañu lépp bàyyi ndey bàyyi bàyyi génn dem di wuti ji am ñoo xam seen waajur nelaw na seen ginnaaw muy seen yaay wala seen pap wala seen ay doom sax surtout ñu nekk Amérique te amuñu kayit muy ay jigéen yu jàmbaare Memphis Tennessee la nekkoon gis leen di yeewu kër may Maykabe gis ay jigéen yu bëre ñoom loo tañaaw gis ay Astou ay jigéen yoo xamante ni bu ñu yeewoo fajar la ñuy dem salon toog di létta am nañu nekk nañ en danger de mort parce que américain yàgg na tiire ci ay coiffeuse bàyyi seen yi ay njaboot si biir kër gi nekk di liggéey toog ak liggéey ni mu méttee yenn saa yi dañ doon liggéey ba di létt ba deux heures ba trois heures du matin buñ jugee suñu tànk yëpp neew yi waaye li ko waral mooy y a pas de li ko waral mooy ay jigéen yu jàmbaare takk seen digg li ko waral mooy ay jigéen yoo xam ñu fooye seen bopp wane ni fu nit mën a nekk mën nga fa daan sa doole ay jigéen yu am diplôme teg si man am na période boo xam ni flotté na mu aw ma woon liggéey Sénégal dama takk sama ndigg jël ay ñaw yére ñaw ay yére dugal ko ci ay saak dem jaay ji ko foofu ba pare toog di leeta def li ma bëgg def ba ma sama dëkk soxlaatee ñu woo ma dama takkaat samay bagage ñëw kon duma ko rusa wax may wax jigéen ñi nañu jàpp liguey amna fofu liguey amna senegal amana lima amaana def fofu su ko amé fii tam dama ko doon def ndax y a pas de son métier waye damay wax sénégalais itam du immigration rek mo fat lépp du émigration mo fat lépp c'est pas la migration en général c'est celle clandestine je suis une fille de Saint-Louis Il faut loo xam faut frappé ville au niveau de Saint-Louis xale yu you dee si xale yu bëre ñàkk seen bakkan te ku koy il faut ne nga au moins 2 millions mooy am jënd nga wala fay nga la dans loolu ville, ko faut ci biir dëkk Il nga mën am Il bëgg kon ñi Saint-Louis ne se fera pas sans ses fils Sénégal ne se fera pas sans ses filles donc am. Mhm. nous vivons les derniers jours de 2021 qu'est-ce qu'il nous faut pour 2022. du courage de la détermination mais surtout la foi mhm. il faut avoir la foi donc on va dire que je me je me répète parce que je me dis que c'est la base de tout mhm. soit pour m'avancer avancer déjà fait. je le dis et je le répète toujours il y a un exemple patent présent le président Macky Sall voilà un président qui est né qui a vécu avec une famille démunie et qui est arrivé au summum de l'État voilà un homme boo xamante Jar c'est c'est c'est exceptionnel dans le monde je ne parle pas de l'Afrique et pourtant xoolal Fumu mu jógee Fumu fu mu suqi milliardaire papam un millionnaire waaye

c'est pas parce que gis nga sanction yi nara a am mais ce biir àqulaay taala bo tëjoo ce bir nek comme ni ngay jullee té ken forcé wu la ndax gisoo yalla waye ngëm-ngëm moy nga tëju ce bir nek té gisoo ken nga am foi nga ne lii dinaa ko def 2019. Je demande à tous les Sénégalais, aux jeunes en particulier, aux jeunes femmes en, en, en général, nous nous am la foi, armée de détermination et d'espoir pour que nous fassions ce monde nous devons. éviter l'ITAM 2022

waaye lu may regretter à chaque fois bugguma ak kenn bugguma xuloo ak kenn parce que j'ai un ami qui a l'habitude de dire quand on diffuse l'amour on reçoit forcément l'amour donc lii lay ñaan yàlla yàlla ma may bi ma pour que je puisse tout le temps diffuser de l'amour autour des gens yi tant sur le plan politique que sur le plan du travail qu'au niveau de ma famille avoir kattan di diffuser tout le temps l'amour mooy jëmm bu ne ma gis ni kii mim aram dell mim dell la jëmm bu ne ma gis yàlla rek moom moo nekk ci moom ma xam ni kii may xool man dong la mm-hmm. waaye loolu tam c'est un c'est un processus may ñaan yàlla yàlla na ma ci yàlla àggale ci bakki fàtte ak sat fàtte waaw maamin mu doon jigéen ba nga xamante ne nii on nous dire que jigéen bu mën góor la mu doon jigéen boobu nga xamante ne nii elle fait partie des femmes les plus remarquées en 2021 xanaa ma bàyyi la nga def un mot de la fin. merci ensuite bonne année. merci beaucoup merci beaucoup maa ngi ñaanal ñëpp. di ñaan yàlla deux mille bi nga xamante ni deux mille vingt deux bi ñuy dugg yàlla nañ ci dugg bisimilah rahmaani rahim ñu génn si alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal ñëpp wér ak wérle parce que loolu moo jiitu di ñaanal ñu jàmm xel jàmmi xol jàmmi yaram di ko ñaanal sama wasila Cheikh Souleymane Sall Atidiane di ko ñaanal sama borom kër di ko ñaanal sama njaboot di ko ñaanal samay waajur di ko ñaanal Sénégalais yëpp di ko ñaanal nag président Macky Sall di ñaanal président Macky Sall yàlla na ko yàlla dëgëral di ñaanal président Macky Sall yàlla na ko yàlla wéral moom ak soxnaam ak képp koo xamante ne mi autour de lui ah di delloo njukkal nag madame Ndeye Saly Diop Dieng parce que voilà une femme exemplaire une femme qui est généreuse gëm Yalla té wóolu ko te di ma fàttali nag yàlla saa parce que dafa naan ma jéegi ma ni ko naam mu ni rek mo fi né. bu nit bëggon def té neexul Yalla sax du mëna motali. kon ma ñaanal wër ak wérle di wax sénégalais yëpp japp leen ñoo di bu daggul dikk mhm. ñu ngi lay jaajëfal toute l'équipe du Dakarois 221 te souhaite une meilleure année 2022, une bonne et heureuse année 2022. Mesdames et messieurs, c'était tout Guéné. ñu nous benn ndaanaan ba nga xamante ne ni kenn dootu ko présenté gis a pas de sous-métier donc je gëm remercie. merci et à la prochaine.